ak El Hadj nga xam ne rek moom lañu xëyandoo ñu daal di koy door Walf Fadjri yi nga xam ne rek am na ko ay ministre yoo xam ne kay dañoo ñàkk am compétence ci wàllu ko liggéey ak yu nu mel jamono ji nag bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne rek réewum Sénégal ma koy dund yéen i kaay gi duñu xamal ne jamono ji nag loolee dañu ko war a seetaan ci réewum Sénégal la tribune yéen i kaay duñu xamal ne jamono ji kay wàllu faiblesse maanaam daal loolee lañu ñu duñu xamal ne boo xoolee nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di opposition bi defante nguurug Sénégal yéen duñu xamal ne moom ñi nga xam ne nee na sax Macky Sall jamono yi muy nekk ci ku jege yaru lañ ko xamee waaye nag kàddu yu ñaaw yu ñàkk teggit loolee kenn xamu ci njiitu réew mi Macky Sall laati duñu xamal ak lu mën a xew daal jamono mbir mi daat nay jaxasoo di ñett ñi ndax ndax Coupe ñu ñëpp jafe-jafe la ñoom la ko sabab nag moo di mbaalo ba mi nga xam ne rek moo nekkoon te dellu si jamono ji nag bàyyi na daal di fi nga xam ne rek moom moo di Benno Bokk Yaakaar yéen kaay du ñu xamal maanaam ndax ñoom du ñu perte lu rëy l'évidence yéen kaay du ñu xamal ne ak lu mën di xew daal mbetteel am na ci seen biir ndax loolee bëri ñoo xam ne séentuwuñu ko woon dañuy séentu jamono le mandat yéen kaay du ñu xamal ne Barthélemy Dias tey la gën a dëggal boppam ngir jot ci maire bu Dakar yéenekaay gi du ñu ne euh, moom koy jamono ji ak jafe-jafe la am ci wàllu googee keneen ki nga xam ne rek amoon na jafe-jafe ba ñu tegoon ko euh, loolee jaarul yoon tey nag nguuru Sénégal na nga xam ne rek noonu la doxale euh, doy na waar yoon goo xam ne maanaam daal kilifa yi ñoom ñoo koy yor nu leen neex ñu jëmee ko loolee nag la ne la bëgg mu dàkk ci réewum Sénégal ak dox ñaxtu danañ ko amal ngir ñu daal di bàyyi ki nga xam ne ne moom moo di kilifa keneen koo xam ne teg nañ ko loxo mu jàpp na jaarul yoon moo di Diop tey fi yéeni kay da doon gi duñu xamal ne moom nag wedd na ba mu set lu ni mel nee na nag ambulancier na mu taxawee la doon filmer boo moytul nag mën naa wee xàtt ci moom li wee xàtt kay ma nga ca coowul Miss Sénégal la yéeni kaay gi duñu xamal ne jamono ji kay Ndeye Fatou Dione nee na dafa wan noonu aw lor te xamu ko bay nag doom ji jamono ji ma nga ca juróom weer enquête nga xam ne rek moo xew te lu jëm ci ci wàllu ko Sénégal yaag yu ni mel te jamono joojee ñu daanale ko ak bi ñu xamal ne benn waay daal bu ñuy wax Adama Ba moom daal moo jàpp xale yu jigéen yi leen lool ci Facebook bi gi duñu xamal ne la nag dinaa la may ko am xaalis lool yónnee ma say vidéo boo ko yónnee mu tee ko xamal ne la góor la di def ak yow naka su noonu yéen gi duñu xamal ne lu ëpp juróom-ñetti fukki jigéen